liberté provisoire am ñu jàpp ne ba léegi ba Bassirou Diomaye war nañ ko mën a may liberté provisoire mu dem bu ñu ko may liberté provisoire beneen bi am mooy ñoom ñu fekk ko camp pénal parce que euh, dafa dafa am benn nu ñu koy waxee benn yamatle bu war am ci diggante candidat yëpp kon dañuy comme am na temps d'antenne te ñu koo jox Cheikh Tidiane Dièye mënuñu ko jox Habib Sy mënuñu ko jox keneen ak keneen moom moo soxla baatu sénégalais moom mooy candidat dem fekk ko camp boole ko ak caméra sénégalais moo xam fu muy toog foofu mu toog ñu jël ko mu wax ay cinq minutes wala mu wax ay minutes am. camp ca camp pénal. ca camp pénal ca ca Cap Manuel di waaw loolu ay ay proposition la beneen mën mën na nekk Cap fekk ko mhm. Cap jël ko. Mhm. mu def déclaration bi ngeen génne dem ñibbi bu subaa ngeen jàllale déclaration bi. Mhm. wala moom mu ba déclaration temps d'antenne mu délégué mandataire ne temps d'antenne ñooy xool ki ma koy délégué chaque jour. cest à jour bi temps d'antenne Bassirou Diomaye délégué nañ ko c'est-à-dire ci ci ci ci code bi lu ñu wax mooy que ni candidat bi. waaw candidat bi mooy wax loolu laa la wax moo tax ma ne la cas bu inédit la. mais fi ñu am na ay. est-ce am na loi bu bu bu. prévoir non non loi prévoir ko. mën na délégué. Mm, mm, loi prévoir nit pour mu. moo tax ñu ne comme comme bi ñu amee woon kii. candidat yu bëri ñu tànn ne cinq modifier code bi ne cinq ñoo koy def mm-hmm. fi ni CNRA ak Sénat ñoo nekk di xool mais mm-hmm. dama ne yooyu yëpp ay voix guddal la mm-hmm. nañ ko bàyyi mu génn mu je pense que nekk président élection présidentielle même bu ngeen koy def sous contrôle judiciaire yéen xam noo leen koy def. ñu euh, dem di signé bu leen neexee chaque chaque semaine mu dem signé na dem signé chaque semaine. waaw ku ñu ku ñu ku ñu ku war a dem campagne. waaw ki dem campagne dem na wax dëgg yàlla xanaa du daw nag. fu mu daw waaw. loolu ah. garanti mënu koo raw waaw te comme dem na ba dossier am jàll na. Mm. fi ñu toon li des rek li ma jàpp mooy nañ ko may liberté éventualité yi ñuy expliqué dem fekk ko camp dem bàyyi kii délégué waxal ko wala mu waxte loi bi moom la wax moom candidat mhm. et puis dafa war a am euh, tollale bu am ci candidat yëpp te loolu bu ñu ko deful dañuy xëtt ay droit am parce tollaale wu ñu ko ak yeneen candidats yi mhm. donc ñoom ils sont obligés ñu appliquer loi bi fexe ba ñu bàyyi ko mu génn mu dem campagne yi ci campagne am comme ñëpp su leen neexee na bu campagne bi jeexee après yeneen xool nu ngeen def mais nañ ko may liberté provisoire mu jëm campagne yi ci mhm. man loolu laa gëm mais yeneen ëpport yeneen voies ñuy xool ak yooyu yëpp c'est c'est vraiment euh, compliqué te pour man war naa mën a ñàkk parce que dafa am loo xamante nag ak xam yelle fam la ba léegi il est présumé innocent mhm. ba léegi kenn condamné gu ko mhm. mën na dem taxaw ci baar bu ñu àtte ko ne ko defoo dara waaw kon comme loolu balaa ñu koy tooñ nañ ko déglu nañ ko déglu may ko liberté provisoire mu dem campagne te ba léegi ñi ñaa espoir ñi ñaa ngi ne peut balaa ouverture campagne bi dinañ nañ ko mu mu mu ñibbi campagne comme ñëpp et puis loolu pour man sax mooy affaire bi quoi. Mhm. sinon buñ ko bàyyee ñiy gis ñu naan heure Bassirou Diomaye Faye jot na diw mooy ñëw di wax kële mooy ñëw di wax bon tâche doon. Mhm. tâche lay doon déjà photo moo nekk ci bulletin bi may leen ku mu ñëw dem Ziguinchor. dem Richard Toll dem feneen ak feneen. moom de loolu sax de loo loo loolu sax de téye ko ci kaso bi mu bañ a campagne sax téewul mu def campagne. boo xam ne si ne que am ko waxal. am na ñu ko waxal waaw ndax am na ñoo xam ne si ni moom sérieusement instant bi ñu ngi sax ñu ngi campagne. sax te yëf yi commencé waaye mën nañ daw te bu ñu waxee nit ñi dañ leen déglu. Mhm. waaye loolu moom mooy euh, force bi nga xamante ni avantage bi nga xamante ni am na ko. te te buñ ko ci kaso bi. Mhm. ba mu gagné leen fii. Mhm. gàcce gi day gën a gudd rek waaw dañ ko génne beneen ciment bu ñu mënta gisee ñu naan kañ lañ koy jëli ci camp pénal ak fu mu hmm. jëm ak nu ñuy def ak prix euh, waa BIP ñoo ngay dem camp génn jee koog beneen ciment la boo xam ne xamuñu ko hmm. nañ ko bàyyi mu dem këram moo xam fu mu dëkk mu dem toog fa battre campagne ñu et nag ñu veiller ci sécurité ñi nga xamante ne ñooy vingt candidats yi. Uh-huh. waaw mais loolu loolu. Euh, loolu loolu nag depuis deux mille dix-neuf da leen di ay léegi ay. Euh, non non bee passé gis nga gis nañ li xewoon entre pur ak. non moo tax moo tax après loolu noonu lañu ñuy délégué ay ay détaché ay euh, ay ay même bu dee waa GMI. wala waa kii nañ leen jël ku nekk candidat ku nekk ku am nga droit sa gaz rapproché xam nga ñi la gën a jege ñi la wóolu lay doon. Uh-huh. man am naa sañ-sañ. mane ne ak Modou laa gën a wóolu. ñooy taxaw sama su ma toog sama néeg wala su ma ñoom lay àndal. Hmm. mais lu jëm ci convoi bi lu jëm ci équipe bi. Hmm. xam naa ne suñu policier matewuñu ko hmm. waaye nañ def ay même bu ñu mënee solliciter yenn ASP yi xool naka la ñuy def ba renforcer la ñu ànd ak yenn yenn yenn ci convoi yi. Hmm. pour mën a sécuriser yenn yi parce que dañ ciy dund yu doy waar yoo xamante ni ne bëggatuma ñu dund ko fii ci Sénégal quoi événement yu tragique am na ci. Euh, daje yi am léeg-léeg. ci ci euh, yi convoi bu ñu dajee daanaka bu fekkente ne ñaar ñu neexawul rek. boo non problème day am xeex day am day am parce que gis nañ ko pur ak. wala nga dugg euh, ci koñ sax ñu song la. pur ak fa kan la pur ñoom la dajoon du est-ce que woon ah? Tamba la woon. waaw amoon na ko jukkuñ ci jamoon. après si lañ désarmé woon euh, gars yëpp. waaw jël seen gànnaay yi dogaale leen récupérer seen gànnaay am ñu ci jàppoon sax. Mm. waaw Tambalong j'ai oublié. fii Tambalong man boobu boobu man dama demoon maa ngi woon ci àll bi ci ci campagne ba ci ci daa ko ci daa ko déggee. Mhm. mais en tout cas lu lu lu doy waar la lu ñu war a mën a éviter tamit yoo xam ne tamit euh, mbir mi àllum euh, politique la dañuy mhm. laaj ci réew mi rek ku nekk da ngay dem dagaan baatu askan bi. Mhm. jarut ñi ciy xeex ak di ci xuloo. donc euh, nañu amee ay discours yoo xam ne si ni programmatique yoo xam ne ni nit ñi dinañu xam que ni kii lii la indi comme programme. Euh, dinaa ko wooteel parce que li mu wax euh, doy na ma du ma ko wooteel parce que li mu wax doyu ma loolu la nga xamante moo moo en tout cas moo tax mooy euh, li nga xam mooy biiwu campagne électorale. Mm, mm. mais du pour daje di xeex de. non non mais mais mënut si ñàkk nag. xam nga xale yi des fois seen deret tàng ak yooyu xam nga affaire yi mais en tout cas but bi moom. Mm. mooy dem ci sénégal yi wax ak ñoom. Mhm. loolu mooy bitu campagne électorale mais. Mhm. ci ci ci temps d' antenne bi 3 minutes la ñu la ñu. ñu tënk waaw 3 minutes la tënk. 3 minutes matul dara waaw xam nga 3 xam nga 20 candidats nag soo ko deful noonu donc euh, ci euh, en tout cas ñenn ñi dañuy enregistré di personne yi ñooy njëkk a jàll. après yeneen dix personnes yi jàll Bassirou Diomaye ci deuxième lot la bokk moom samedi eh, non samedi lay enregistré samedi lay enregistré donc moom waaw dimanche la ñu bu ñu commencé mooy ñi njëkk jàll hmm. avant le journal mooy dix personnes après journal beneen loo mooy beneen beneen beneen loo beneen mm-hmm. non non non waaw vendredi. waaw ñii vendredi la ñuy enregistré ñëpp ñuy jàll. c'est que ñii avant journal ñii après journal. voilà ñëpp benn jour la ñuy jàll. waaw benn jour la bi comme dañuy soog a commencé. waaw enregistrement bi moo. ñu ko deux jours vendredi di di ñooy ñooy def. Mm-hmm. Eh, mais Boubacar Camara moo mujj moo mujj tey. <laughs> gis naa gis naa ko ci liste bi ma yàlla daal du nit. <laughs> moo moo ubbi woon paradise moo moo tëj moo moo tëj kii temps d'antenne yàlla daal du nit. <laughs> ah mais Amadou Ba mooy mooy mooy la deuxième bokk na si bokk na bokk na si ñi moom jàll ah. moom mooy njëkk a jàll moom mooy deuxième personne deuxième personne buy buy buy ci buy jàll waaw mais xam nga temps d'antenne RTS sax man question bi dama ne peut-être c'est pour la forme rek mais doo leen ah, bëreetul non mais c'est solennel c'est solennel ah c'est solennel ça ça je l'avoue dama koy wax c'est solennel parce que nga toog gars yi sol seen costume yu correct ñenn ñi def ay grand boubou yu baax mm. caméra bi ñu réglé ko ba mu baax nga toog wàcce discours waajaat ko et puis am na ci la waxee ci programme ah. c'est vrai parce que foofu ngay toog nga wax programme nga def sa trois minutes mm. chaque trois minutes ngay jëble ki dem n'empêche mm. sa ëllëg sa buñ la toppee nag fi ñu toon nii lundi wala mardi wala mercredi day détaché kenn mu topp la léegi yabaat ko ci journalu campagne bi mhm. nga wax fii nii nii def fii nii ñu jël accueil beeg yooyu noonu wala su la neexee nga dellu si defaat déclaration parce que candidat bi mooy xool mhm. am na ñoo xam ne bu ñu dawalee une semaine rek commencé lot enchaîner déclaration yi chaque ñaari fan ñetti fan nga ñëw toog déclaration donc selon candidat bi mooy surtout seen jour de repos yi léegi nag déclaration yi xam naa foofu nag da kii bëgg profito Ousmane Sonko moo tax bu ne jomaay nangam ak ne jomaay nangam ak nangam mais foofu yaakaar naa bu moytul gars yi dañ naan sa bulletin mooy nekk si ginnaaw sa bulletin nga fi wane. waaw ne parce xam <laughs> moom xam naa ne gaa yi nañ ko ne fii duñ fi yëkkati bulletin wu jomaay sa sa sa candidat la yow la. waaw jomaay toogu fi. waaw mais nag jomaay jomaay toogu fi waaye jomaay lay wax loolu parce que li may wax maa ko moom. waaw peut-être bu leen <laughs> xam nga. pardon waaw xam nga loolu moom. Hmm. dinañ ko gis si candidat si campagne bi. moo tax ah. candidat campagne la woon di nga gis lu ne. candidat boobu Diomaye daal mën naa am tey ci détenu yi laay wax kële ñëwaat toog ne ci lii laay wax ci programme jomaay bi hmm. ñun jomaay la ñuy jàppale nangam ak nangam ak nangam bon dina am benn avantage boo xam ne dina ko am ci ñeneen ñi par rapport ak euh, lële et puis surtout léegi euh, depuis bu ñu modifié code bi ba léegi vingt tànn juróom waaw tànn juróom rek yi nga bëgg watal dugg ci dugg bi jël kenn dugal ko doo fa nekk di tànn vingt yëpp da ngay tànn cinq maxi euh, hmm. mini euh, nu ñu koy waxee daal di jël kenn daal di dem donc loolu mooy li nga xamante ne rek euh, voilà ay coppite la yoo xamante ne dina am ci ci ci ci ci élection bi mais daal temps d'antenne RTS comme ni ma ko doon waxee sànq rek hmm. c'est solennel mais jeune ne pense pas que mu ëpp mu ëpp mu ëpp dayo lépp parce que am na ñoom sax duñ seetaan RTS ba xool ay temps d'antenne xam nga comme duñ ko sax xool comme léegi ak live yi ñi def léegi ak live yi daanaka et puis non et puis non fii sénégalais ah. xam nga nu ñuy demee xam nga fële maa ko maa maa ko doon faral di wax quoi am na ñoo xamante dañuy organiser débat da nga gis France bu ñuy defee seen débat ñaan ñu pare ñu nga gis ñu ne sondage yi kii daanu na fii kii wàcc na fi parce que dañuy déglu kii teg programme kii teg di teggi kii teg di teggi ñu comprendre mais fii amuñu opportunité boobu suñu acteur politique yi mayuñu ñu ko day ku toog naan. non mais xam nga nag mais xam nga Moustapha euh, euh, France dañuy voté ak ni ñuy voté bokkul. Mhm. France dañuy dañuy voté bu ñuy voté dañuy déglu candidat bi. kii mhm. lan lay wax ban programme la indi lii tey lan ban lan la ci ban solution la ci indi problème bii problème immigration problème mu économie problème ñoom noonu la ñuy voté mais ñun nag. dañuy <laughs> voté mooy diw neex na diw ma neex. <laughs> wala diw na fi jóge. <laughs> boo fi toogoon fii ñuy wax. Ah. boo fi toogoon fii tey boo fi tegoon ñaari candidat ñuy wax kenn mhm. ki. mën na dominer ki ci des. ki ñu dominer boo moytu moom la ñuy voté parce que peut-être ni mu toll. E- e- exemple bu ndaw laa te chaque ma hmm. recevoir ci plateau fii plateau bi. Hmm. Khadija Mayakor Diouf. Hmm. recevoir fi sama xam-xam bu gàtt de. li Cheikh Oumar doon wax ci programme ci Golf Sud. ak bi mu ak bi mu am dafa romboon de loin ki nga xamante ne moo di Khadija Mayakor. musuma d'accord ak ñun mu di ma tegal. man xam naa localité bi tuuti. di ma expliquer lii ak lii c'est faisable lii ak lii mën na nekk lii ak lii mën na nekk semaine bi stop ma recevoir ndaw si. Mm-hmm. bon sànniwuma ko ay xeer wala lu ni mel mais dama xam ne niveau bi. bokkul nekkuñu waay. et pourtant bi ñu demee élection kan moo gagné. moom moo gagné ndax si da ko dépassé de loin da ko dépassé de loin. loolu mooy wane tey ji question sénégalais nu ñuy voté. nu voté sénégalais nu ñuy voté loolu c'est mm. très important. Mm-hmm. léegi nag ñenn ñi bu ñu ko xamee am na koo xamante ne day ji kartam amul lu ko nit nit mën a wax amul lu ko Boubacar Camara mën a wax wala lu ko Déthié Fall lu keneen mën a wax. Mm. loo xamante ne du ko voté Amadou Ba amul. Mm.

ñooñu nag la ñuy ci campagne électorale bi. Mhm. mais campagne électorale ne vise pas un militant. Mhm. parce militant bi am nga ko ba noppi. ki ngay soxla mooy ki nga xamante ne moom xamagul fu benn benn ñaar ñi si ëpp ñeneen ñi seen xol jox nañ kenn ba noppi gauche la droite la wala kële la wala keneen mhm. ko ba noppi donc loolu il moo tax boo dee da ngay campagne il faut que sa sa directoire jël en compte ñoom ñëpp ñooñu ñëpp am na koo xamante ne leader bi daf koy neex naturellement day gis koo xam ne man Pape mhm. moom moom laay votel te moom lay votel waaw nga gis keneen ñëw ne la man Boubacar Camara laa sentir moom laay votel kenn mënu ci dara donc loolu mooy mooy vote affectif bi nga xamante ne mhm. ñenn ñi dañ koy def mhm. xol lay demee ñi demee raison nag am na ñoom ne ñoom dañuy toog non non man kii laa wóolu parce que état lii laa ci bëgg nangam ak nangam ak nangam votel ko mais ak lépp lu ci mënti am rek euh, ñu ngi ñaan yàlla mu doon ay campagne yu apaisé yu mhm. dal euh, que le meilleur gagne <coughs> bal <coughs> dañ <coughs> ma balle fan yi moom sama